dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan ba M TV cant ak ngërëm ñen na leen si topp bi ngeen di topp seen bi li gën a fës si bopp xibaar yi Jeune Afrique sondage bi nga xam ne nag daal dina koy génne kii di Bassirou Diomaye Faye lan jox ne jamono bii nag bu élection amoon mooy génn premier tour mooy gagné élection yi si fàttali nag Jeune Afrique bi ni 2019 lu ni mel nii la ko amale woon joxoon favori kii di président Macky Sall gis nañ élection yi bi mu jàllee kii di président Macky Sall moo gagné élection présidentielle 2019 kon nag euh, mu daal di defaat lu ni mel tey mu jox kii di Bassirou Diomaye Faye mën nañ ne euh, première place bi teg si kii di Cheikh Tidiane Dièye Habib Sy door a indi quatrième place Amadou Ba candidat bi nga xam ne nag moom moo fi nekkal pouvoir bi door seet teg kii di Idrissa Seck mi nga xam ne moo jëloon deuxième place. élection 2019 mu nekk nag lu ama am solo euh, loo xam ne dina gën a mën a jox confiance ñi nga xam ne nag ñoo di waa coalition Diomaye président euh, lu doy waar moo xewoon démb euh, fële sa Daar Musti convoi Cheikh Bara Ndiaye ak Serigne Mara Niass ñoom nag bi nga xamee ne jaar nañ Louga dem saint wi yëngal foofu dugg daar Musti démb nag si guddi gi lu doy waar moo fa daal di xew daal nga xam ne ginnaaw bi nga xamee ne ñoom amal na seen convoi euh, di wër euh, mbooloo mu baree bari génn topp leen ñu jekki-jekki daal rek gis ay bal yoo xam ne daal takk na foofee sa daaru musti ah, ba tas seen convoi bi convoi Cheikh Bara Ndiaye bi mu nekk nag euh, jëf yoo xam ne ñaaw na lool nekk lu doy waar ñu ngi nag di ko jiiñee ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Modou Diagne Fada di wax kané nak ay nerveum lañu am ñu né sécurité Modou Diagne da ñoo daal di jëf jëf ju ni mel ju ñaaw ji nga xamné nak amna am sa daar musse mom Cheikh bar ndjay sax nak euh, ma ngay amal conférence de presse euh, di wax ci jëf ji nga xamné daal amal nañ ko fële sa daar musse bu jaré porte plainte ñu daal di koy def bu jaree yobbu mbiri daal justice yoon euh, dañ koy def ndax liñ leen def nekkul lo xamné lu jaar yoon la mu nekk mbir mu doy waar Euh, Bassirou Diomaye fay am nga ne démb nag jaaroon na fële sa Nioro mbooloo mu bare bari nag takku daal di koy topp waaye nag foofu ja gis nañ fa jàmmarloo yu tara tara yoo xam ne jot na fa am si ñi nga xale yi nga xam ne nag ñoo ànd ak kii di Bassirou Diomaye Faye doon jàmmarloog uh, takk der yi ba tax ñu taal fa ay puno ni tamit jot na fa jolli lu ni mel nag li ko waral nekkul leen lu dul ndaw ñi bëggoon a teeru kii di Bassirou Diomaye Faye ñu ne nag lu ni mel fa amee tax na nag coow daat fay jot a juddu waaye ak lu mën di xew moom Bassirou Diomaye Faye jot na faa jaar nemmeeku ñi nga xam ne nag ñoo ko bëggoon a teeru gis fa mbooloo mu takkoo takku loo xam ne nag gën nañ koo gis foofee sa ñooro ndax ñooroo ñëpp xam nañ ne dëkk la boo xam ne mën nañ ne toujours ñi nekk ci pouvoir bi ñoom ñoo fay ëpp mbooloo te ñoo koy ñoo fay gañee waaye nag bi la yoon surprise dafa am ndax mbooloo mi ñu fa gis musula am si ay élection koo xam ne opposant nga nga jaar fa euh, ñu takkoon ni daal di lay topp bi la yoon nag nemmeeku nañ ko gis ko si kii di Bassirou Diomaye Faye coalition Diomaye président mu nekk lu ama am solo